ñew nañ fi tay setti suñu bay suñu khalifa Cheikh mohammedul Mahi Ibrahim Niass mi nga xamne mom la yalla jox tay pour mu jité mbolo mi motax ñu ñew tay don feddali nga xamne demb la won musul dañ di nek suñu bay ci moment buñ mëna nek rek ànd na ak ñun fi yakarna pak buñ min la buñ fi gan na fi ci kër gi nga xam ne ñëw nañ fi heure bu nekk ci moment bu ñu soxlaa rek mu taxaw ci suñu wet kon bu ñëwee tey ñëw nañ fi seet si ko waaye ñëw nañ fi tam ci turu président Macky Sall nga xam ne ñu ngi nekk ci fan yi ci fan yoo xam ne fan yu xaw a xat la ca métti président Macky Sall dépêché ñi war a dépêché depuis mbir mi xew noppalawut avant mbir mi di xew sax ci taxawaayam ci sëriñ bi ci fii ci biir réew mi ak ci biti réew ba ci aaxiru ayaamam yii nga xam ne ci la sama borom defee li ko soob président mi ngi taxaw heure bu nekk. ñaari fan yi mu mujjee dund nga xam ne ci la jóge fii dem Dakar yàlla def li ko soob président dañ na ci loo xamante ne nii amul kenn laa wax ku ko daj loolu nag li muy wane rek mooy ndoomoo gim ndoomoo woon sëriñ bi waaye taalibe gim jàpp ne taalibe la waaye jàpp na it sénégalais la avant muy doon chef moo tax muy doxalee noonu def na ci ay mbir yu bari ci taxawaayam ci jëfam ñun ñëpp mën nañoo seede ne yoon yi nga xam ne yàlla dogal na sëriñ bi génn ko dem seeti yaramam yëpp président moo taxaw tem pour loolu yëpp mën a mën a mën a mën a rafet mën a sotti loolu ñëpp mën nañ ko seede a ah, bi mbir mi xewee ak léegi tam mi ngi taxaw ci wetu sëriñ bi pour jàppalante ak moom ci lépp loo xam ne gis na ne luy yombal la pour yan bi diis ci wetu sëriñ bi mi ngi koy def moo tax tey ñu jàpp ne ñu ngi jëm incha allah ci bés bi nga xam ne ci lañ jàpp ne ci lañ war a Euh, jébbal sëriñ bi boromam mu doon bis boo xam ne mën naa am dina xaw a xat loolu dafay bu baax jotee dafay jaadu président ji diggal njabootam gi pour ñu ñëw jege si ko pour jàppalante ak moom ci loolu ci lépp loo xam ne dana yombal nit ñi bu ñëwee ñu mën a nekk ci jàmm ba keroog ñuy delluwaat loolu moo tax ñu ñëw nekk ci wetam incha allah ci loolu moom la ñuy continuer ba keroog muy wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kontaan ci seen taxawaay yëg ngeen ne ñun ñëpp ñoo bokk ñàkk ku nekk yëg nga ne kii sa kër la bàyyi ko eh, ngeen taxaw taxawaay yoo xam ne taxawaayu góor la taxawaayu góor la taxawaayu nit bu am responsabilité la taxawaay bu mën a ku xam nooy bokkee ak say ak say dëkkandoo li nga xam ne yéen ku moom kon nag ñu ngi kontaan ci loolu bu baax di leen ñaanal li ma leen di ñaanal toujours yal yàlla barkeel leen yal yàlla feeñal barke ci seen liggéey yal yàlla yokk sama xama yal na yàlla gën laa dëgëral yal na yàlla taxawal président gën koo dëgëral ñaan yàlla ñun ñëpp yal na ñu yàlla dindil ci mbas mi nga xam ne euh, sonal nañu ñun ñëpp te mën naa baare liggéey yal nañu ko yàlla teggil bañ mën a liggéey wala mu nootal ñu koy tem bañ mën a ànd ak moom liggéey yaa rasulillah amiin